xew di xew ak xewaat ci réew mi sunu gaal du nu ci wax nan dem ca giwaanu Kafountine ubbil yéenekaay bi aw xale wu jigéen woo xamante ni moom la ñu xëy fekk ko ci aw néegam mu faatu waa Kafountine gi yëpp nag waaru jaaxle ci li nga xamante ni moom moo di faatu gi nga xamante ni moom la ñu faat xale bu jigéen bi lee te naan sunu sécurité bi ci jëmi a taxaw ñi a jóg fi mu toll nii ay léttu la ñu léttu nañ ñu déglu te jéem cee taxaw aaral ñu sunu dëkk bi lee kaaraange dëgg la ñu soxla ñoom ñëpp ñu naan nañu yoon def liggéeyam ci mbir mu nu mel ndax xale bu jigéen ay doom autopsie faa mu am seetal lii ñaaw na nanu ko faata yëglekaay gi naan man accident bi faat na de ca Bignona ubbil yéenekaay bi accident bu metti lool tëtëtëtët moom kay jar na jor na jot na li nga xamante ni moo di ma mesure yi ñu jëloon ci wàllum wata yi ñu daal di koo dëggal nag bile accident kenn na ca faatu waaye ña ca des laata ñu leen di génne sonn nañu lool metti na kii aw carrière fi mu toll ni tembe metti na lool sos ubbil yéenekaay bi démb këpp la def ci suuf bopp mu ni mu ni këfit ni gëpp ci suuf ubbil yéenekaay bi liis njaago aw dóor la ko dóor woo xamante ne moo yóbbu sos teer yëglekaay gi naan man ni ñaayi tàllal tànk ya jéll bi sos daanu démb moo raw jéll ba bi bis daanu fa nga xamante ni moo di ca TFM signature bi li muy rëy rëy wax ji li muy rëy rëy léewul too li muy rëy rëy bàkku lu muy rëy rëy ndekete liis njaago nga ko dencal kur fañ boo xam xamoon na ni bu ko gàccee moo àgg teer guy gi yëglekaay gi naan man Ada Fass la ma ko waxoon la def ca tànk ya la jaar consultant yi wax ci làmm ne guy gi indiwul dara laa wax tus rien nada du forme du dara dafa gay mani faas ci jëmi boppam laa wax amaat nañu lanu soxla woon di aada faas jooyatunu mbéygéey jooyatunu tafa gay aada faas ñëw na imposé boppam dëggal boppam ci diggante ma guy gi samante baaraam waaxu waax wuti ko ubbil yéenekaay bi tàkk def la nga xamante ni moom la bëgg ca moom ma ni guy gi kay ak aada faas aada faas daa mel ne kuy naanum ndox mbaa soow mu saf sàpp ak suukar combat bi dara da cee méttiwul amul dóor amul dara combat bu metti lool te saf yëglekaay gi naan man di combat Gris Bordeaux Ama Dakar Ama Baldé itam ñëw ni man gone laa te daa am lu ma soxla di ko wëri seetal lii Ama Baldé ci jëmi boppam yëglekaay gi naan maan ku mel ni mbàccum gerte riir mi ne ma tulleeg màlle moom la indi démb ci diggante ma guy gi di xeex xeex bu metti laa amateur yëpp kontaan xeex ba metti ga mu mettee tax aw jël la amul yëglekaay gi naan maan combat ba jeexawul ci aw jël de xam nga ci nu mu jeexee décision médicale yëglekaay gi nee xeex ba metti ga mu mettee tax ki nga xamante ni moom moo di wuyu ci turu Ama Baldé yëglekaay gi naan maan dóor Gris Bordeaux ci kanam nga mu yàqu <laughs> combat ba yàqu seetal lii moo ne combat am ñaari ndim la de yàgg-yàgg dina leer li leer ba leer mooy ah moom fa xëy xamal jàngat ci soxna yi nga xam ne fa ñuy sëy waaye ña ngay daj loo xam ne mburu dajut ko ci taxal fañ leen di dóor fañ leen di xaf fañ leen di méttital fañ leen di toroxal te kenn defu ko lu mooy seen i jëkkër yéen a kaay bi na waaye nag li ma ci jaaxal mooy loolu yëpp nag méttit boobu yëpp jabar xamut sañ-sañ xamut kàddu ci kër xamut dara fay ma man de dóor jabar toroxal jabar ak yi ni mel daa ko ruma ci de waaye coonob sëy jigéen muñ ko déggal sa boroom kër loolu moom lépp lu ci jabar mën na ca góorgóorlu xam ngeen lu tax liggéey nday xañu doom coonob yaay ci sëy bu doomee màggee rek fay leer la laneen lu leer ba yegg ca nañ ja bi naa foofu itam ab l'accident bu méttee métti moom moo am diggante samedi 29 juin jëm dimanche le 30 foofee nag ci route nationale numéro 4 bu Bignona foofee nag ab l'accident bu nga xamante ni daal benn xale bu góor bu am ñaar fukki ak ñeent moom moo ki daal di ñàkk bakkanam accident bi nag sax moom dong moo ci ñàkk bakkanam waaye tamit am na ci ñeneen ñaan nit nga xamante ni ñoom pour ñu génnee woon sax ci biir oto bi problème la woon bi sapeur pompier nag yàgg na fa sax daal di ñëw fexe daal ba ñu génne leen ci foofee ñu nekkoon ci seen i chaise waaye nag ñàkk nañ deret bu bëri am na sax kenn ñoom ku nga xamante ni ba tey jii nii mu ngi urgence foofee ca l'hôpital bu Bignona lu ci mënti am daal tali bi itam jamono bii mu ngi wëy di faat ay bakkan waaye itam sax lii di indiscipline bi mu ngi wëli di am ci kaw tali bi wala saa itam yenn chauffeur si nga xamante ni daal ñoom ñoo fekkee mbir moome di ñaax ret jëwriñ gi dénk wàllum dem beeg dikk bi daal di fexe daal ba assi ba andiwaat li nga xamante ni moom moo di permis à point bi ba ñu mun koo exécuter ki saa si lu ci mën mënti am daal gendre gendarmerie daal dina ibbi ab l'enquête ngir xam dëgg-dëgg ana nan la accident bi dikkee ba faat bakkan dal di ci am dikk Ousmane Sonko koy démb ca Colobane dal moo giifal marchand ambulant yi nga xam ne kon dañoo mer ba futu wax ginnaaw bu mu leen dégloo dalal leen nag moom Ousmane Sonko daal dalal ne xelu marchand ambulant ba noppi nag ne daal na nooy tuddul yéene kaay ne moom nguur gi kay la mu taal barke de moo njaay dikk ngir fay ko ginnaaw dikk premier bu Sénégal bi lee Sonko démb ca Colobane te moom Ousmane na ci kaw ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine ba ci maire yi ndaxte daal jàpp na ne lu ji njàk daal ñooma yéegle mais premier ministre bu Sénégal bi nekkee Ousmane Sonko xanaa daa fàtte ne am ci déguerpissement yi daal ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine daal loxoom génnu ci déedéet waaye li am ba des mooy déguerpissement yi daal maire Pastef fi daal ñoo ko njëkk a door ci réew mi te ñu ngi ko tàmbalee ci Kër Massar ak Bilal Diatta ba ci Golf Sud ak Khadija Mahécor Diouf lii ko li bi le moom ne ko dégg déedéet ndaxte nee na coow li coow li ministre de Jean Baptiste Tine la ndax moo jël bataaxal bi ba gaay fépp ci Sénégal lii l'info ne premier ministre Sénégal bi kay di Ousmane Sonko nee na daal nguur gi dina jël responsabilité ba mu jeex tàkk la lay wax ci digg bisment yi même bu dee compétence la yoo xam ne kon mairie daal dañ ko jagleel moom Ousmane Sonko ni am nag ci mbedd bi daal nguur gi am na ci responsabilité mairie ba ci askan bi seen bopp ndax ñoom ñëpp seen loxo daal génnu ci te dikkam démb daal dala na xelu ambulant yi ndax gars bu futu démb daal giif nañu coffre yi kay dëgg moom diggante premier ministre Sénégal bi Ousmane Sonko ak ministre de l'intérieur bi lay daal di Jean Baptiste koy sapeur pompier fa doon fay daay ga info yéen a kaay na ko waaye nag Ousmane Sonko terewul démb wax na fa dëgg de ndax nee na problème bi li ko andi am na loo xam ne état bi la muy nguuru Macky Sall gi fi nekkoon ñoo seetaan nit ku neex fu la neex nga dëkk lal jaay kaw tali beeg fu nekk di ko bay bayal ba mu bëri nag ba toll fii léegi li jënti ko day nekk problème beneen ba ca tepp mooy mairie ba ñoom it fa ñu luyee seetaan nit di lal wala nekk foo xam ne jaarut yoon ñetteelu responsabilité bi askan wi la tamit ndax jaar fu nit ñi war a jaar ku fa ñëw defar cantine wala nga laal fa di jaay loolu dëppoowut yoon waaye ginnaaw bu mu waxee dëgg jooju fa wax ne président Diomaye Faye dana ci sàkk pexe en attendant ñu woyofal yëf yi ba xale yi mën a jaay source a a kaay na ko waaye koromaak muy sonko toj na fa démb de ah moom fa wax ne dogalu jëlee fa jaaykat yooyu moom yëgut ko te jëwrinam ji ñu dénk wàllu biir réew mi fa génne woon ab bataaxal ci weeru mai santaane li a sax ñu ko fa doon yooxoo démb ba mu jógee foofu nag moom Ousmane Sonko fa dem ca place ba ñuy wax Anse Bernard waaye la mu fa fekk nee du jàmm de place la boo xam ne kenn waru faa dëkk waaye nguuru Macky Sall gi weer yi ci ginnaaw ca lañ ko séddale jox ko seeni nit ci loo xam ne jaaduwut suuf sa daal fañ koo caxat-caxatee ba tax Sud Quotidien ne Sonko fa koo ñaawlu indépendant yéen kaay na kay mbóot yu garaaw la suleeti démb ci doxalinu Macky Sall <laughs> ba yegg gis baadu am diggante pouvoir exécutif bi ak pouvoir législatif bi yéen i kayi gi de las Abdoul Mbow daan nay wax ne Ousmane Sonko bu dee nag reconnaître li nga xam ne mooy assemblée nationale du ñu mën a reconnaître ab ministre am yéen i kayi gi di Walf Fadjri xeex bi jamono ji moo am ci assemblée nationale moo tax assemblée nationale mbir mi demul cëng dikkul mbay laara ayib dafee ci biir journal bi nee na tere débat orientation budgétaire bi loole nag mënut a empêcher bi ñu liggéey seen liggéey yéen i kayi gi di bés bi ñu xëy mi nga xam ne ab député ay jamono daan nay wax nationale fii ak weeru janvier kenn mënu koo tas yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko daan nay wax ñu auditel ko convention yi wax na tamit ñu auditel lu jëm ci wàllum recrutement yi ak publicité yi daan nay wax tamit ñu dakkal lépp loo xam ne ñeel na ay convention foofu ci diwaanu Pikine daal di wax nag ci sëriñ bi nga xamante ni moom dañ koo daal di jàpp ret muy sàkku ay xale yu góor sëriñ boobee nag mbir moomee nekkul sax lu nga xamante ni guléet la ndax kenn ci ay ndongoom nag moom moo ko daal di dénoncé mbir mi nag bi mu lawee sax itam yeneen i xale daal daal dinañ xam ne kat moom sëriñ boobee ànd na ak ñoom tëddee leen mu nekk nag jafe-jafe nga xamante ni sax ñoom xale yooyee gannaaw bu leen yóbbee ci l'hôpital fekk nañ ni que nag ñoom seen yaram yàqu na ngir nag siif bi nga xamante ni sëriñ boobee daal na leen ko siif mbir mi nag sax bi ko bi mu yeggee ci ko ci ay loxo yoon daal alkaate yi fexe ba jàpp ko moom sëriñ bi fekkoon ko ci bërëb bu nga xamante ni sax foofee la toogoon di waxtaane mbiru dine ñu ne ko coppit daal di koy yóbbu ca kanamu yoon gannaaw nag enquête yi nga xamante ni am na ko moom ak takk der yi dañ daal di koy placé sous mandat de dépôt mu mel ni sax moom mbir yooyee daanaka nag depuis atum 2019 ba tey moom sëriñ bi dañul di ko def lu ci mënti am nag jamono bii wajuri xale yu góor yi daal jàpp ni daal moom sëriñ boobee dañ koy wooy sëriñ det waaye itam matul sëriñ ndax nag yàq na xale yu bëree bëri yu nga xamante ni ñu ngi woon ci bërëb boobee moom sax defu ko ay xale jigéen waaye nag ay xale yu góor daal la jël def leen comme ay soxnaam di leen daal di tëddee matin midi soir lu ci mën ci am daal moom mii di sëriñ boobee jamono bi nag ëllëgëm nar naa na sax lool lool lool ñuy xaar ni nag ana fan la yoon nara mujjee ak i wàññeekam ak moom mii di sëriñ boobee. gannaaw coowal itam bi nga xamante ni daal nemmeeku woon nañ ko benn gox boo xamante ni mu ngi ci diwaanu ndakaaru ci ay imaam yu nga xamante ni daal ñu ngi xëccoo wàllum jiite jàkka bi yoon nak ci diwaanu ndakaaru itam am na ci jàkka ju nga xamante ni daal imaam. ab imaam daal moom moo daal di yëkkati ay kàddoom nekkat ña nga xamante ne ñoom ñooy topp ci ginnaawam saa su nekkee rek bu jógee jiite gi dañ koy dal di menace de moor wala sax moom mu daal di tekki ndombol tànkam ci jàkka ji nga xamante ni foofee la daan joxe ay waxtoom mu nekk nag mbir mu nga xamante ni doy na waar loolu ci jàkka nga xamante ni daal mu ngi ci diwaanu Ndakaaru ba itam ci mbiru jàkka yooyu sax foofe ci diwaanu Colobane itam gis nañu itam benn vidéo bu nga xamante ni depuis démb ba léegi mu ngi circulé ay gars yi nag ne nag foofee daf ci am jàkka bu nga xamante ni dañ koo daal di daaneel bokk nag ci bërëb yu nga xamante ni daal dañ koo boole woon ci déguerpissement yi mu mel ni daal itam am na ñu nga xamante ni sax dem bay politiser mbir mi ne nag jamono bii nguur gu nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di nguur gu bees leen ni ret moo leen tax a jóg ngir daal fexe ba lépp lu nga xamante ni daal yoon def ko daal di tere ret ñu jëlee ko fi waaye ñoom nag jàpp nañ daal jàkka joojee même bu dee sax teguwul ci yoon waroon nañ ko mën a bàyyi foofu ndax nag nekk na bërëb bu nga xamante ni ñu bëri ci askan wa nga xamante ni ñu ngi yeewoo foofee kit kit ke diwaan Colobane min nañ ko loolu kon nag ñu ko woon daaneel Massaly démissionné na ci poste PCA am ba pare tàmbali yori xeeram di ko dóor ci gouvernement bi France ñi gën ba bañ nit ñu ñuul ñi jullit ñi ak euh, arab yeeg yooya tey émigré ñooñu la ñu wateel fi mu ne nii waa France ñoom fi mu ne nii nanu génn seen réew lañu bëgg waaw Bardella jiitu na de bu ñoom Marine Le Pen ñoo jiitoogum ci élection yi de démb Air Sénégal danoo fab ab xottu yóbbu ko ci aéroport ba foofa ca Ndar ne leen kaay leen dugg fii ndax vol bi mënut a jóg waaw Gris Bordeaux r ba toj Ada Fass moom moo daan guy gi euh, kële moom dañ ko Euh, qui était hier à Colobane pour constater de visu les opérations de déguerpissement. Ousmane Sonko, selon nos confrères du quotidien Le Soleil, a fait hier une descente au marché Colobane, mais aussi à Anse Bernard. Et dans le premier lieu, il a invité le maire à faire preuve de tolérance en attendant de trouver les meilleures solutions. Au deuxième endroit, il a décelé et dénoncé une prédation foncière. Nos confrères du quotidien Le Quotidien reviennent également Colobane où Ousmane Sonko a fait face à des ambulants surexcités. Et pour calmer leur colère, Ousmane Sonko demande l'assouplissement des opérations. Le Premier ministre met la pédale douce, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'Info. Dans le journal Bës Bi Le Jour, nos confrères ajoutent qu'Ousmane Sonko prône plus d'humanisme dans le déguerpissement pour le moment et annonce des financements de la DER. Cependant, nos confrères trouvent maire Tahaou de Colobane et des accusations des marchands ambulants. C'est une sorte de bataille qui se mène donc entre Pastef et Tahaou Sénégal et Colobane a été le théâtre des opérations. Retenons également avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu à la plage de Lance Bernard et selon nos confrères, Sonko a encore sorti de nouveaux cafards de maquis. Selon le Premier ministre, le morcellement a été fait quelques

raciste waa wala déet ca Mauritanie gii al Ghazouani gagné na premier tour de aha waaw waaw Europe moom gaa ñaa ca deuxième tour yo stade yéene kaay France day tey lay ak Belgique dem naa ca lamb ja source aane Tigre de Fass ba Gris Bordeaux day benn bët la yóbbaale ba muy ñibbi le mandat yéene kaay ne màgget ya day yóbbu nañ leen retraite suñu lamb ne Ama Baldé gagné na Gris Bordeaux décision arbitrale ardo Ada Fass gagné na kon guy gi Liss daa dóor zos zos daanu rek jeex na. <laughs> nees mën a comprendre Ousmane Sonko ne yëguloon ministre de l' intérieur décision ak circulaire bi mu joxe woon ngir ñu déguerpir ak désencombré yenn gox yi loolu la laaj boobu la taskatu xabaar yi samp waaw Ousmane Sonko kon démb dem na Colobane jàkkaarloog marchand ambulant yi ñi mer ba fut waaye ñu dëkk Colobane moom seen i xol sedd na ci mesures yi ñu jël waaye Ousmane Sonko mu ngi ñaan préfet ak maire yi ñu def yoxamal maanaam wàññi seen loxo tuuti ci décision yi te dañuy ut solution fii ak i fan ba mu fa jógee ci la dem Anse Bernard Anse la bu nekk ginnaaw palais de la république pour yéen ñi dëkkul Ndakaaru te war a xam li xew ci réew mi bërëb boobu daal dafa am ay autorités yu ñu ko dogal ñii deux mille cinq cent mètres carrés ñii deux mille trois mille mètres carrés ñii quatre mille mètres carrés gouvernement bi nee nañ daan foqatiwaat lépp ndax moomeelu ñëpp la du ñu nangu ay nit ñu jege gouvernement tax ñu koy fab waaw assemblée nationale Abdou Mbow groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ne ñoom tamit dañuy lànk budget bii ñu bëgg nu wote ko ngir Sénégal dox ñoom it duñ ko wote ndax euh, premier ministre dafa war a ñëw def déclaration de politique générale mu lànk ne du ko def Babacar Gaye daal ne attention crise politique 62 Mamadou Dia Senghor Abdoulaye Diouf Sarr daan kenn rek mooy gardien de la constitution mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax moom la sénégalais yi fal. Docteur Alioune Dione ci visite technique bu mu amal ca réseau bu Thiès tàmbalee faa séddale l'indépendant naan man waxtu woowu Massamba Diop ci journée d'excellence yi ba tey ca diwaanu Thiès jébbal na ay neexal ak i raaye meilleur élève ya ngir taxawaayu xale yi ci njàng mi gën a dëgër le point naan man Mbaye Dione nit maire bu Ngunjaan def nañ ko meilleur leader communautaire diggante financement groupement yi joyanti xale yu jigéen yi waaye tam localité am ci ay tàggatoog unité de transformation prison l'observateur naan maan waxtu woo it jàpp leen ay détective privé ñi ngi ni xuus ci réewum Sénégal yéeni kaay bi xëy def ci l'enquête xam leen ni ñi ngi leen di jébbal ay mission te ñu ngi koy doxal lu toll ci juróom-ñetti téeméer ci ay client am nañ saafara ci détective privé yi fii ci Sénégal diggante deux mille 2024 le legs de Macky Sall la nouvelle responsabilité de Amadou Ba saa waay sans langue de bois eh langue de bois Diouf Sarr sur les questions de l'heure eh la tonalité. Et c'est avec beaucoup de tonalité que Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas manqué de dire dans Critique quotidien que Amadouba, eh nous lui souhaitons, nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle, eh bien sa nouvelle <laughs> responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que le quotidien, le quotidien reparle du report, eh du débat d'orientation budgétaire. Pourquoi faire Eh pour nous dire, l'Assemblée, eh la crise avec le gouvernement. Au chef a une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bretagne dans sa rubrique Les lundis de Badiabal à lire et à lire dans le quotidien, le quotidien ce matin. Ce matin, eh il est question pour mon confrère Gagne Madiabal de chercher à savoir, histoire de faire savoir une bonne fois pour toutes, dites-moi, et eh dites-moi qui Ousmane Sonko, qui Ousmane Sonko respecte-t-il Badou Bon, le faux, le faux n'est pas de l'Assemblée nationale, mais du Premier ministre, et eh du Premier ministre qui veut la substituer, et la substituer a a c'est choisir. Eh bien, Madjambal Diagne, mon confrère, eh mon confrère du quotidien, le quotidien dans sa rubrique, les lundis de Madjambal, de relever le spectre de la motion de censure et de la qui empêcherait en réalité des réalités Sawai Pros, la porte du bourreau de dormir, du sommeil du juste, pour Madjambal Diagne à ce sujet d'évoquer, eh d'évoquer Victor Hugo, aussi Gatsa Gatsa, eh appellation de la loi du talion en Wolof, pour reprendre, eh l'auteur, eh l'auteur de ses propos, eh bien, mon c'est-à-dire de faire retenir aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de retour de bateau, pour ne pas dire de retour de boomerang, effet boomerang, du gatsa gatsa. Sommes-nous tentés de retenir dans la rubrique les lundis de Badiambal à lire dans le quotidien, le quotidien, le journal de et bien de souligner également un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, signé bon confrère Badiambal gagne dans la rubrique les lundis de Badiambal à lire dans le quotidien, le quotidien, ñuy déggandoo yi sécurité bi nga xamante ni moom la moom la moom la ñii di laaj nag ah nañ leen ko jox ah yow jigéen gu am ñaari doom nga man ko fekk ci aw néegam faat ko nii dem ah waaw loolu lum waaw moom loolu duñu ci wax ah ah yéen samay soppe nag faaw nu wax ci lii nag ndeysaan samay soppe ngeen bëgg naa leen ngeen bëgg ma tax nee naa leen aw ma férié aw ma dimanche aw ma altine aw ma lundi aw ma dara H24 travailler liggéey ngir di leen bégal yéen samay soppee donc kon maa ngi leen di jëfal bu baax a baax di leen kontaane di leen jox seen wàcc waaye di leen wax ni doole jën ndox la nag waaye man sama doole yéen ñi may teewlu la di ma teewlu ëpp peu partout Sénégal ci biir réew ak bitim réew yéen ñi may teewlu ñëpp bëgg naa leen waaw tey moom jërul nekk di lim commentaire yeeg yu ni mel euh, dinañ ko def suba incha allah ndax tey férié la kon <laughs> kon tey damay férié ci commentaire yi ah waaye léegi yéen li ma leen di laaj rek mooy euh, naka ngeen gisee réew mi ci commentaire yi ak itam euh, liggéey bi itam nga xamante ni ñu ngi koy amal naka ngeen ko gisee ci revue de presse yi ayca ñu ngi leen di xaar gars pour nag bëgg naa ñëpp mais damaa dajeeg sama xarit sama soppe Mamadou Sow Diaw borom waajur borom euh, ba ndeysaan sama xarit damaa dajeeg moom ndeysaan mu kontaan mu kontaan lool ci daje bi ñu daje macha allah Massar mi ma waat itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bi bigi di bigi képp koo xamante ni yaa ngi may teewlu bay daam sama xarit waaw waaw maa ngi lay nuyu sama téer bu mag bi ba am nga jàmm sëriñ Abdou Salaam Sarr maa ngi koy bigi baax a baax loo sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma njaay dem ñoom ñëpp rek ma kenn di bigi ñëpp dama noonu duma lim du ma lim yaa ami jabaay jërul may lim sama yaay xujja ah bàjjan xujja jërul may lim ah way jaw nan dem nan dem ba suba jàmm rek Modou Laye bii nan dem ba suba ak jàmm ah mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci riim askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. tikkatina. dalee na bi tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. cher gente de Enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. ñuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex moox la li xew ci réew mi askanu sunu gaal gi jëla ngeen jëw laan bi kum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet te te te ay nag yàlla baax na ñu yéen ak jàmm bu subaak jàmm incha allah ñu yéen C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la tidong, mais la tidong de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. <laughs> tey loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si a ngi doon te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah